ñi ngi sant euh, ñëpp ñoo xamante ne teew nañu tey di sant nag suñu bailleur muy la fondation Friedrich Ebert nga xamante ne ñoo ñu yombalal suñu ndaje bi nga xam ne moom lañ def ci Magellan muy ndaje ñetti fan ndaje ñetti fan boo xam ne dañ fi daje pour réseau bi nga xam ne moom la ñuy wax réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambie daal di toog lël càmbar boppam ci ñetti fan yi xool lan mooy suñu doole waaye xool lan moo xamante ne moo sooxee ci ñun mais xool aussi ci ñetti at yi ñu jëm fan la ñuy war a teg suñu tànk ñu koy ooyee planification stratégique donc loolu mooy waxoon moo moo waraloon suñu teewaay tey ñu ànd ci ak fondation Frédéric Ebert mu ñu ci gunge ànd ci ak suñu ay consultant ñu ñu doon yombalal liggéey bi ñu toog fi ñetti fan xool li ñu mën xool li ñu mënul xool li ñuy joyanti xool aussi fan la ñu war a tegaat suñu tànk ci ñetti at yi jëm perspective ndaje wi boo ko xoolee mooy wax naa ko sama njëlbeeni wax xam nga ku ñëw toog na dafay seetlu boppam dafay xool lan la mën dafay xool ay force dafay xool ay faiblesse mais dafay xool ci li nga xamante ne moo ko wër en tant que organisation lan moo ko mën a indil gàllankoor ci liggéeyam mais ci biir aussi fa mu nekk yan opportunité wala book yan euh, avantage la mun a am foofu kooku. mi ngi xool fan lay tegaat tànkam perspective yi ñu am mooy ubbeeku ci àdduna parce que nag réseau bi moom déjà ubbeeku na ci Sénégal ndax fi mu nekk nii tey lël bi ñu woon fukki région yi ak ñeent ñëpp ku ci nekk am nga ko la fi représenté ñu ngi fi woon waaye bu ñu xoolee réseau bi dem na ba Gambie parce que mu ngi tudd Sénégalo Gambie fa la démarré waaye ñu dekku na ba Mauritanie dem na ba Guinée dem na ba Tunisie donc suñu perspective mooy peut-être même sax au niveau africain ñu am réseau boo xamante ne dina boole Afrique wërngal këpp et pourquoi pas réseau mondial boo xamante ne dinañ ci nekk en tant que jigéen di ci dox lu mucc ayib nekk ci objectif yu nga xamante ne dafay renforcer le développement durable ci suñu dëkk yi waaye ci Afrique mais ci àdduna yëpp. réseau bi dafa nekk benn ensemble d'associations boo xam ne ku nekk. danga nekk ca gox ba nga dëkk am fa sa mbooloo ngeen di liggéey ci benn fànn ñu dajale nag ñun suñ force pour jëm ci lan entrepreneuriat féminin pour jëm ci lan leadership féminin pour jël ci lan les questions de développement loolu moo ñu tënkale ci biir réseau bi nag ku ci nekk am nga sa obédience politique am na ñoo xam ne ñu ngi politique ci biir réseau bi seen wàllu bopp la am na ñoo xam ne politique guñ am na ñoo xam ne ñu ngi ci politique ñoo bokk fa ñu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi ci politique bokkuñu fu ñu nekk am na ñoo xam ne politique ñu fenn kon réseau bi benn euh, kuréel goo xamante ne moom politigul politigul deful politique waaye képp ku fa nekk fu la neex nga dem politique yi waaye bu ñu ñëwee ci réseau bi nag développement lañ fay wax li nga xamante ne vraiment mooy suqali suñu réew te bokkul ci politique. loolu mooy fànn réseau bi ci côté jàng boobu tey dañ cee tëgg lu am solo parce que côté jàng boobu ñun yemalewuñ ko rek ci njàng nasaraan dañu tarxiis ba nga xamante ne mooy jàng alxuraan bi jàng daara yi parce que ku nekk xam na ne fi mu ne nii politique étatique gu Sénégal euh, modernisation des daara dafa nekk en vogue dafa am benn euh, politique boo xamante ne état du Sénégal mi ngi koy teg jëmale ko ci daara yi te bu fekkee ne da ngaa nekk kuréel nekk ci sa réew. da ngay adossé wala boog da ngay jël sa li ngay liggéey nga tegu ko méngale ko ak li nga xam ne moom la sa liggéey tëgg di sa sa réew tëgg di ko politiquer kon ci njàng moomu ci côté nasaraan bi fas nañ ci yéene am ci lu am solo lu ñu war a dem def ji ko ak xale yi surtout xale yu jigéen ñi parce que gis nañ ne xale yu jigéen ñi ci jamono bi nga xamante ne ñu baal ma dañuy gis mbaax duñu duñu mën a dem jàngi dinañ am ay jafe-jafe ñooñu war nañ leen mën a gunge accompagner leen ci lu bari ci ay kit yoo xam ne dina am serviette hygiénique ay kit yoo nga xamante ne dina am ay garab mais aussi ñun dañoo gis ne état bu Sénégal bu njëkk ba amoon nañ ci suñu école ñun ay assistante sociale yoo xamante ne ñun en tant que jeune fille jigéen soo amoon ay jafe-jafe ci moom ngay dem waxtaan ak moom yu demee noonu xëj na ñun mënuñ ko indi en tant que réseau mais xëj na mun nañoo waxtaan ak suñu réew mën nañu def plaidoyer boo xam ne lu mel ni noonu mën na mën na mën na ñëwaat waaye mën nañu aussi tàllal suñu ay loxo ay nit ñoo xam ne ñu ngi ñu jàppale du ñu ci xale yi nga xamante ne ñi ngi dem di jàngi seeni ay fourniture ak seeni ay bagage mu nekk ay kit yoo xam ne mun nañ leen mun nañ leen ko jox ba ci ay bourse mun nañ ko dimbale ñoo xamante ne dañu leen di parrainer ba ñuy dimbali xale yi ñuy jàng loolu nag bu ñu ko defee ci nasaraan bi noonu lañ koy defee ci daara yi parce que déjà réseau bi xam ngeen ne présidente mooy la présidente de ndeyu daara départementale de Kaolack monsieur Dame Soukoro Mbaye kon daara yooyu aussi au delà de action sociale yi nga xam ne moom lañ ciy def yeneen i action day jëm ci daara yooyu donc école bi euh, vraiment liñ ci mbébét bëri na macha allah.